hay lalla kon bii mu takk nii ci la bokk bëgg nga commencé fii mu takk ci la bokk bi mu xëyee ci suba waaw doomam ji jigéen ji baax ji waaw da koo takkal nag tabaar bi mu ko takkal laa ilaha ceen ko takkal laa ilaha illallah ma xam mooy lan ak barmark or la waaye néew lu kenn a gis soixante quinze or la ko jox ndoxalee ko ci laylatul xadri bi lii musuma ko gis. ay la. musuma gis lu mel nii. ticket waa lii lan la ban. ban saaru dessin. signature yaa ngi Absa Giro madame Macké barki Serigne Diop lii doy na war lii toj na maas kon daal mama ami Cheikh Yaba kon soo paree ci bii bii ngay laal boo paree ci bii laal bii boo paree ci laal bii yaa ko moom ndax dangaa baax dangaa gore ku baax nga barke Sëñ Bamba. waaw wuyu ma ah. li ma sëriñ Tuubaa loo ci def amoo tànk ginnaaw. xam nga lu waral lii. Fama man musuma gis lu mel nii. waa koñ bi kaay leen xool. laa ilaha illallah. waa Touba kaay leen xool. wóoyaay. réew mi kaay leen xool. laa ilaha illallah. lu mu saam. ah Fama. Fama ci réew. loo am woneel. barki Serigne Bamba. Cheikh Ami Yaaba. laa ilaha illallah. mi nga xam ni. waaye. daa woote guddi. ab sa juróom mel na. madame Mbacke. madame Mbacke mi nekk Serigne Mame Mor Mbacke. mi nga xam ni. mu Serigne Mouraas. waaw. dama ni. mi yëngu na. barke bu baax bi jot na. billaay dëgg ah. ma yónni. barke Serigne Bamba ma ànd ak Cheikh Yaba Diop. la ilaha illallah. ànd ak fa kàlla. Mhm. fondation ab mu baax mi. madame Mbacke moo def lii kër ami Cheikh Yaba ah. mu Serigne Cheikh ah ñu jël bis bi tuddee ko Serigne Mamor ah Mbacke ah madame Mbacke lii kenn xamul lii lan la ndogu la. Eh, déggal nu te fokk lislaam wasawjatan salihatan tuhinu ala tuha wal birru ya muhinu loolu sëñ Tuubaa ñaan ay sëtam wasawjatan salihatan tuhinu ala tuha wal birru ya muhinu ah, ci faw sëñ la ne ne loolu si ma loolu faw sëñ la nekk ne soxna loolu loolu dafa daan ñaanal bi ngay wax mais sëtu Serigne Mourtala doomu soxna Ami bi Serigne Mourtala. Eh, doomi nag Serigne Mourtala. waaw mi ne bi may wax mi ngi si kaw. di soxna Assu. di soxna Assu. di soxna sëñ Mamor. di sox ah soxna sëñ Mamor. waaw sëñ Mamor mu jongama lool. ne mu jongama lool nag. soxna Absa dikk. ne soxna Absa dikk. jongama lool. soxna Absa dikk jongama lool waaye tàccu leen lool waaye tàccu leen ma ko. ma xam ne nag ñaan soxna na. ah loolu nag nee na ñaan gu nangu la ñaan ko soxna sa ñaanal. yàlla naw na ko. soxna Absa euh, soxna Absa bu may teral. nee soxna Absa bu may teral. day teral soxna Asou. nee day ci boole di teral nag soxna dafa ñëw pour def lu baax. loolu nag dafa ñëw ngir def lu baax. waaw bis bii. soxna si nee na bis bii. bu ma ko tëggee. nee na bu ma ko tëggee. soxna Absa nelawutul. nee soxna Absa nelawatul. guddi ak bëccëg. nee guddi wax lu baax ak bis bi. nee ngi wax lu baax ak jëf lu baax rek ne bis bi. nee loolu doo nga ko jëlee Dakar. mu ko noonu laay